boppam dafa wuyu turam parce que ki ko initié tamit koo xamante ni la dafa yàgg teewal Dakar ñu ay chedem koo xamante ni la dafa yàgg bëgg aar dafa bëgg aar te di ko defal di ko jugal di ci daj lu dara jarul kon euh, jour bi nii rek la mënoon mel artistes yi teew ñi bëgg aar teew ñëpp daal di fekkee tamit spectacle bu extraordinaire dundal na aar tamit wane na li aar di jariñ ci réew euh, baax a baax a baax ban kanam la aar am ci biir Ndakaaru Njaay tamit loolu rafet na trop rafet lu nañ ko ah les jours à venir qui a déjà génne na albumam ce mois mi ngi tudd Niit maanaam mettre en lumière di wax ci jigéen ñi am na ay yeneen affaires yu ñëw ñu ngi jaajëfal jigéen ñi am na son yu tudd waaw kumba ñu ngi wax ci mindeef ñu ngi wax ci luy rafetal aar tamit parce que aar tamit dafa war a jàngale man ci loolu lay dox ci lii di ñëw ak yii di ñëw li may ñaan yàlla mooy lépp lu may génnee muy jóge ci xol di dal ci xol di jàngalaate di yiiraate di reetaan loowaate am na bu baax a baax a baax lu muy def si ñun soxna yi parce que gis nga soxna dafa am lu am solo loo xamante ni si dañ ko ko war a delloo moom moom kër mooy yilif kër parce que ginnaaw borom këram moom mooy xëy bés bu yàlla sàkk di nekk ci gone yi moom mooy kii ëmb mooy kii wasin xam na liy douleuru àdduna kon day tax xolam gën a yaatu kooku dañ ko war a fonk dañ ko war a kawel dañ ko war a naw moo tax nag maa ngi wax ñi nga xamante ne si violence mën na nekk ci euh, dóor mën na nekk ci kàddu mën na nekk ci lu nekk moo tax ñu war a gën a bàyyi xel si jigéen ñi ndax euh, ñoom ñoo yor àdduna te ñoom ñooy yor gone yi te ñaan nañu yàlla xale yi di indi lu gën a rafet ci àdduna pas di ko gën a ñaawal